yaakaar naa dama fi war a tënk. lu bees tey mu sanc ko nekkoon ci écurie bu mag jóge fa tey sanc lu bees loo koy dénk ci li des ci carrière am ak kanamam école de bi mu sanc nii. non lu ma ko wax rek xarañ bu mu amoon mu continuer ci xarañ boobu parce que loo gis rek dafa am fu muy commencé et je pense que li, yaakaar naa ne waru na ko mun a def parce que waa Parcelles ñoo ko soxla sa doomi waa Parcelles nekk doomi waa Parcelles ñu soxla la lii waroon ko mun a def. war ko mun a def waaw. kontaan nañ ci yow maa ngi leen di gërëm di leen sant seen ta seen taxawaay bi rafet na trop. parce que waaw waaw père ba dama euh, gis yàgg père ba seen diggante luy relation bi. père ba suñu diggante. Eh, yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko. dara bu mu nekkul dara. waaw père ba la nekk ak man di def lu nekk ci man di jàpp ba léegi mu ngi def ci man bugg a sport ak ku ñu wax Ahmed Sougou ñooñu mënu ma leen fay bu baax baax moom xam na Ahmed Sougou ñooñu ne ñu def ci man séeréer yi sax mun naa wax ne defuñ ko ci man. parce que problème mun ma munte am ñoo koy réglé soxla bu ma munte am ñoo may jox oto ma dem ci àll bi di dem seeti mbokk yi di waxtaan ak mbokk yi financièrement la même chose kon nag dama leen di gërëm di leen sant comme ni ma koy waxoon dema ak barke dema rek di ko ñaanal yalla lu mu bugg a moo ko xam defal ko ko te mu nekk lu gën ci moom rawatina nag lu muy def ci xalé yi légui kon père ba sa manam mu la déggee yow ya nekkon mbërëm lolu wóor na loolu wóor na adduna bi yëpp xam nañ ko te nëbbuwu ci dara nëbbuwu ci dara daf koy feeñal ba ñëpp xam ne daf koy feeñal waaw père li mu de. revanche am ak Mor bi muy dóor Mor Nguer mu daanu. sama directeur moo joxe 2 millions 500 sponsor en 84 sama mbër ñëpp xam nañ ko sama dom la kii mooy sama mbër wasalaam. donc xam nga ku nekk doomam. man maa nga doon dinaa ci jàpp. loolu moo waral gën a suma teewaay. ci yow. jar ngeen jëf

képp ku nekk séeréer képp ku nekk joolaa képp ku nekk olof ñu ngi leen di woo foofu yéen nag la presse Sénégal yëpp maa ngi leen di woo jar ngeen